tawa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 auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allahu wassalaatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin seydina muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ixwat al imaani wal islaam wal ixsaan wal iraada assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu di ñaan yàlla subhaanahu wa mu nungu ñu suñu jaam yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc waa M-Media Group Nuuru Daarayni ñuy dugal niyo boobu ak ziar boobu ci biir groupe bi di ko jaarale rek ci loxol suñu kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottali ñu ko mboole mbokk yi nga xam ne yi ñoom lañ seqal liggéey bu sell bi rek di ñaan yàlla yàggal ko ci suñu kanam bu baax a baax a baax gën koo jàppale ba lim bëgg liggéeyal maam ja ak Cheikh Balla Coro Mbakke ci yoonu maam Xaadim Rasul mi yàlla defal ko ci lu kawe njortam te nu ànd ko moom di jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon tey xam na ñu jublu ci liggéey bi rek ci kàttan ak yàlla subhanahu wa di jéem a jublu ci laaj yi nga xam ne moo fi jot bi ci njëkk muy laaj bi jóge ci jëween yi liggéey muy Modou Ngom Gning ñoo koy ziar bu baax a baax di lu taxawaayam ak ak yittewoom ak euh, ni muy saytoo liggéey boo wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax di ñaan yàlla dolli koo jàppale ba ni mu ko bëggee rek mu man koo amee nu kawe njortam kon tey laaj bi njëkk mooy laajam Modou Ngom rek muy day laaj ki nga xam ne ki dafa ñëw di julli ci jàkka wala jumaa ya waaye fekk na ne jumaa ji fees na béréb bi itam bayaalu jumaa ji fees na ba des na fi benn béréb boo xam ne bi daal xañ na boo fa taxawee maanaam li nga war a jubloo penku dëgg dëgg dëgg maanaam doo ko mën a def muy laaj loolu ba xam euh, ñàkk jublu direct penku googu maanaam lañ lañ ci may nit ki nga xam ne kii day julli ci béréb bu mel noonu dañ ko naan ida kaanal maylu xafifan laa yadur wa in kaanal maylu shadidan fa haza yadurru assalaata nit ki bu ñëwee di julli xaw a mooy kaaba gi tuuti xaw a mooy kaaba gi la wax waaye ñu mooy euh, penku bi xam nga kaaba gi moom da xool xebla gi nga xam ne gii fa kaaba ga nekk maanaam ngay dàkk xebla boobu waaye nag sant ñu la sax nag maanaam nga ne la dangay def direct foo mën a nekk euh, jubloo ak kaaba gi waaye xebla gi nga xam ne gii mooy fa kaaba ga nekk yow foo mën a nekk ci àdduna danga war a wëlbatiku ba jàkkaarloo ak xebla googu waaye néew ñu foo mën a nekk rek dangay jàkkaarloo ak kaaba gi direct déedéet maanaam jàkkaarloo ak kaaba gi direct moom ña nekk biir màkka rek tey nekk dem ca juma ca jàkka ja dafa jullee muy kaaba ga maam loolam ñooñu la loolu war ñoom gis ngeen ko bu ñuy julli dañuy ref cercle ndax li ko war mooy ku ci nekk foofu moom danga war a diir kaaba gi jàkkaarloo moom directement waaye ku dëkkun màkka nga xam ne danga nekk ci yeneen dëkk yu sori ya foo mën a nekk rek yow ni ngay fi ngay féete ba sab xar kanam jàkkaarloog xeble gi nga xam ne gi mooy kaaba gi foofa lañ lay wax maanaam nga jublu foofa su ko defee kon kon day da nga dañu laa gis ne am na xaw a mooy goo xam ne gi boo ko moyee eh, penku kaaba gi maanaam ni nga waroon a jubloo dëgg-dëgg ci bu dee nun na muy penku mel ni da nga ko xaw mooy tuuti moo xam te joor la nga ko awee wala càmmeñ nañ bu fekkee ni bariwut mooy googa ko mooy bariwut lool maanaam du yàq dara ci julli ga lañ cay bañ kay mooy nit ki di julli mooy penku boobu mooy goo xam ne gi gu bari la ba koo gis eh, yaakaar ne kii jubluwut penku maanaam moo xam nag mel ni da koo xaw a mooy ba mel ni càmmeñam léegi dafa féeteeg penku bi walla mu mooy ko mooy boo xam ne gi dafa mel léegi ndeyjooram moo féete ak penku bi waaye bu dee nim ko moyee mooy gu yem la goo xam ne gi bariwut loolu du yàq ci julli ga dara ndax fii Seydina Muhammad dafay wax ne ma baynal mashriqi wal maghribi xiblatun Seydina Muhammad ne ne daal li nga xam li moo tam nekk ci diggante penku ak sawu lépp xebla la loolu Seydina Muhammad wax nag ne li nekk ci diggante penku ak sawu lépp xebla la loolu buñ koy xool maanaam comme ñun ñi nga xam ni dafa mel noo dëkk Sénégal waa Sénégal ak réew yi mel noonu ci buñ koy xool ñu tóoroo maanaam ñooy moom wax jooju maanaam noo koy moom maanaam ñun euh, penku mooy sunu xebla foofu la ñuy dàkk kaaba gi penku lañu war a jublu waaye bu fekkee ni ñoo xam ne masalan dëkk bañ nekk maanaam réew ma ñu nekk kaaba gi ñoom ña ngi ko féetee lu mel ni bët gànnaar comme niñ ko mën a misaale kon xam nga ne ñooña bu ñu julli xeble gi ñu julli mooy bët saalum la ñu jublu ñoom bu ñu julli waaye itam bu fekkee ne meneen réew la moo xam ne mii dañu naan maanaam ñu ngi féete ñoom kaaba ga ci bët saalum itam ñoom seen xebla day nekk bët gànnaar kon kon daal réew mu mën a doon euh, fa nga xam ne fii buñ fa awee maanaam jubloog xebla gi xebla gi euh, falakaa ba ga nekk ne ne loola mooy seen xebla te kon xam nga loolu day yaatu lool kon daal dañ la naan euh, waxuñu maanaam nga dàkk kaaba gi waaye dangay dakk xebla gi nga xam ne gi moom la kaaba gi jublu ba bañ ko moy waaw fexe ko bañ moy nag moom bam jeex tàkk daal di ne fa mazhabu jumhuril ulama na min alsaxaabati wa man baadahum xaalu an alwaajiba istiqbaalu jihati alkaabati wala yajibu isaabatu ayniha ñi nga xam na ñi ñoo doon jàngale boroom xam-xam yi ca saxaaba ya di jàngale fiqh di jàngale sharia ak ñi nga xam ne ñi ñoo topp ca ñoom dañ ne daal li nga xam ne lii mooy moo war mooy nit ki fu mu nekk ci àdduna buy julli maanaam mu jublu ci xebla gi nga xam ne gi fala la kaaba ga nekk waaye tamit du war ci moom maanaam muy jublu dëgg-dëgg direct ca kaaba ga ndax ne loolu maanaam loolu waa màkk rek ñëw ko mën nga xam ne ñoom ku ca dem ca jàpp kaja boo julli moom da ngay dàkk kaaba waaye ku dëkkut biir màkka moom boo julli xebla ngay dàkk kon ne ne falaa yaduru tayaamunu wala tayaasurul yasiraani ne kon yow mi nekkul biir màkka xawam mooy kaaba gi tuuti wala penku euh, xebla gi bu fekkee ni mooy goo nga ko mooy bariwut yaatuwut maanaam nga won ko xaw ko woon sa càmmeñ wala sa ndejoor te bariwut dina lu bu boobaa dara nekku ca gis nga ci loolu lay wax mu ne illaa bi makkata indal bayti fa innahu in zaala anhu shay'an wa in xalla faqad taraka alxiblata ne na nag ba mu des waa màkka waa màkka na biir màkka moom boo fa ñëw ci kaaba gi du fa jullee ne moom kooku lum mooy kaaba gi rek lum néew néew ne na su loolu dañ ko ko may day ndax bu boobaa day bàyyi fi nga xam ne bii moom la war a jublu ci wàllu xebla nga xam ne gi moom la war a làkk itam yàlla da ci ay bi muy wax ni ko fi dikat yi waxe dañ ne xaalallahu taala fa walli wajhaka chatral masjidil haram yi maanaam aaya bi ni ñu koy firi dañ ne chatral masjidil haram maanaam mooy xebla gi nga xam ne gi ci kaaba ga nekk waaye waxul kaaba gi maanaam ne ne aaya bi dafa wax ne yow soo dee julli na nga jublu ci xebla gi nga xam ne gi maanaam fala kaaba ga placé wu ci réew moo mën a nekk nga jubloo ak moom jàkkaarloo ak moom waaye waxul ne na nga daal di dàkk kaaba gi kon daal euh, nanu góorlu dal ba suñ mënee di def dek direct jubloo penku bi comme nun Sénégal ñu jubloo penku boobu te bañ koo mooy suñ nee ba am ngantalit maanaam fii ni jullee xañ na am na nu mu demee noo xam ne xañ na na nga war a jubloo dëgg dëgg penku doo ko man euh, du tere man ngaa julli du yàqu julli nga waaye nag bu boobaa bu mu nag ko mooy gu bari koo xam ne gi danga koy xaw a mooy xeeb la beneen laajam di ci topp Muudu Ngom dafay laaj ki ñëw di julli si ci mbooloo mi ci jàkka ji wala jumaa ji waaye mu ñëw rek ba ci ëttëb jàkka ji lu mel ni ker wala foo xam ne moom doo nga fay sàppe mu yem foofa di fa julli lan moo def atteem dañ naan fa salaatul munfaridi xalfa sufuufi duuna uzrin saxiixatun mal karaahati maanaam kooku ñëw bañ a àgg ca sàppe ya daa di sàppe moom dong maanaam taxaw moom dong di julli ne nañ maanaam ak julleem wér na waaye tam loolu dañ koo sib maanaam liñ gëna na bëgg mooy boo ñëwee ci mbooloo mi te jàkka ji wala jumaa ji feesagut maanaam nga dem ba àgg ca sàppe ya nga ànd ca sàppe ya waaye terewut ne ne boo beroo itam taxaw sa ak sa sàppees bopp yow dong di julli ne ne julli nga bay eh, wér na waaye nag noonu nga def maanaam dañ koo sip ndax eh, di nga da ngay def li nga xam ne lii moo gën a yey ci yow te mooy nga deman ànd ca sàppe waaye du yàq julli ga nag du tere julli ga wér na wa zahabal malikiyatu ila jawaasi salaat munfaridan xalfa salaat nee na bu ñu xool ci ngërëm imam malik ñu koy jàngale dañ ne maanaam nit ki may nañ ko mu def loolu maanaam dem fekk na sàppe ya feesagut juuñ jàkka ja feesagut sa waaye moom mu beru moom dong julli foofu noonu ànd ak mbooloo julli ga beneen laajam bi ci topp mu dungam dafay laaj kayfa nasta'iddu li ramadana maanaam weeru koor wii wala weeru koor wu mën a doon rek nan lañ koy waajale waaye tam day laaj wa ma xukmu ma yafaluhu baadu nisaa'i wa yusammawnahu suukares koor ne day laaj itam ci wàllu koor dafay gis ni daal am na ci yu ci sos xewal ko di ko def muy loo xam ne li xañ na ci wàllu soxna yi maanaam ci ñoom lañ ko gën a seetlu muy lu ñuy def ci koor yi di ko tuddee suukaras koor muy daal dafay mel ni daal am na luñ ci dugal loo xam ne lii Euh, xaw naa yee fitna xaw naa indi ak ñàkk sago ci ñu di ko def muy lu ñu xewal muy di ko tudde suukaras koor ci wàllu bu koor jotee euh, am jëmm yoo xam ne yi dañu nan sama goro wala sama nangam daal dama koy wutal ay yére ak ay xaalis yuñ cey boole ak yu mel noonu daal nga xam ne indi na fitna bari joo xam ne ji daal xañ na war nañoo xoolaat ba xam loolu moom nan deme koor gi dëgg waaw muy lim njëkk wax muy naka la ñuy waajale koor moom mu ne chahru ramadan lahu ahamiyatun kabiratun weeru koor dafa am solo lool li annahu chahru lazi fii faradallahu siyaama alal muminina ndax ne ne weeru koor mooy weer wi nga xam ne bii moo tombeeg weeru yàlla faratal ci ñun ñu war ko woor ñun jullit yi waaye tamit bokk na ca euh, solos weeru korowu alxuraan ji nga xam ne ji moo gën lu dul moom yàlla wàcce ko itam li koy wàcce dafa tombeek ne ci biir weeru koor wi la ko wàcce waaye itam walima lahu min sawabin azimin laa ya'lamuhu illa Allahu taala ne itam dafa bokk ci solo soo xam ne si weeru koor am na ko yàlla da cee denc ab yool bu rëy rëy bu baree bari boo xam ne dafa màgg màggaay boo xam ne gii na mu toll kenn xamu ko ku yàlla kon weeru mel noonu su na ko yàlla baaxee eh, ku yàlla dogal nga fekke ko te tal ko te man ko bala muy ñëw maanaam war nga ko waajal ba boo ci tàbbee lépp loo xam ne lii ak wàllu jaamu yàlla rek maanaam loolu nga gën caa góorgóorlu gën caa farlu gën ko yokk bu baax a baax su ko defee waaj googu ni war a waajal weeru koor woon ak balay tàbbisi mu ne wa yumkinul istidadu li ramadaana minan nasaihi taaliyati mën nanoo sukkandiku ci laaye biir maanaam dénkaan yi nga xam ni moom lañu ñenn ci borom xam yi dénk ne leen buñ ci sukkandikoo dinañ man cee jàpp ngir mu mën a waajal weeru koor gi te bokk na ci lañ cey jëkke mooy an niyatu maanaam nu fas ci sunu xol yéene weeru koor wi di ñaan yàlla fekkal na ko suñ ko fekkee daal maanaam dañ koy fas yéene woor doo ko defee yéene jooju war a doon yéene ju sell joo xam ne ji moom bokk na ci li ñu war a waajale weeru koor wi bokk na itam ci liñ ko war a waajale moom koor gi as siyaamu ayaamin xalilatin xabla ramadaana dana itam buñ ko mënee weer yu nu nekk muy saaban ñu naan ko aw baraxlu suñ ci mënee ay woor ay fan yoo xam ne yu xaw a takku la nu woor ko ci ngir ne ne gis nga koor boo koy doog a tàmbali day métti lool waaye soo demee woor ci lu mat ñaari fan ak ñett jëm juróom yooyu koor gi day mujj day daal di ëpp ci yow lool kon weer yu nu nekk te mooy baraxlu wi dane soo ci wooree ay fan daal dina la dimbali ba bu weeru koor bi duggee moom ngir nga war ko maanaam day yomb ci la yow lool nam doon jafee ak na mu doon mittee day fekk ne yow euh, tàmmaan nga ko ci weer yi ba daanaka coono booba euh, dootu la sonal lool waaye bokk na ci it lañ koy waajale ala amal bi taatil kasira maanaam bokk na ci li ñuy waajale koor moom itam euh, fii nu nii ci weer bi ñu yokk suñuy jëf suñu jaamu yàlla lu baree baree bari luñ doon def ci ay naafila buy julli ñu yokk naafila yooyee luñ doon def itam ci lu baax loola ñu yokk ko ci wàllu dimbal ñi nga xam ne dañ leen a ku nekk rek ka nga tane ci wàllu wërsëg sa wërsëg boobu loo ci doon def ci lu baax nga gën koo yokk waaye tamit loo doon dimbale nit ñi rek loolu nga gën koo yokk ba bu koor gi ñëwee maanaam yooyu gën la mën a jàppal ndal la nga xam ne ni moom nga war a taxawe ci biir koor gi ci wàllu jaamu yàlla googu bokk na it lu ñuy wax ñoom borom xam-xam yi ne shiraul xaajaati wal mutatallabaati min aklin wa shurbin wa naxwi zalika bokk na ci li nu boroom xam-xam dénk ngir ñu waajale ko koor ne ne ko mënee lépp loo xam ne di yaakaar na ne dañ koy aajowoo ci biir koor gi lu jëm ci nag ci wàllu eh, ak lekk ak ak naan lay wax xam naa ne ne loolu buñ ko mënee ñu daal koy teel a fàggu denc ko teg ko ne ne nag wal xikmatu min zalika adamu taddaye saati fi ramadana fi shiraay ne na nag xaj na buñ naan nañu farlu waajal ci jënd li ñuy war a soxla ci biir koor gi ci wàllu lekk aku ñam mën mënees na koo dégg neneen waaye moom ne ñoom liñ ci jublu liñ njariñ ci loolu mooy dane weeru koor waxtoom yépp dafa am solo te ne boo jënduur yooyu waajal ko ba koor gi dugg ngay dem di ko jëndi maanaam waxtu yooyu nga xam ne da nga koy sànq te mën naa bari lool ngeen ngay dem di jëndi loolu te fekkan na bu fekkan ne da koo jëndan balaa koor gi ñëw waxtu yooyu nga doon dem di ko sànki mën nga cee def ak jaamu yàlla gu baree bari ne ne loolu la ci jublu rek ci ñu teel a waajal suñ ko mënee yooyu ñu yittewoo maanaam ñu teel ko fàggu moom itam bokk na ci itam lañ ko war a waajale itam muy silatu rahim maanaam jokk ak bokk bokk gi nga xam ni gi yàlla dañu ko boole muy bokk askan yàlla da koo fonk lool fonk loonu ko dénkunu mbokk googu ñu di ko jokk ngir muy gën a dëgër kon na ne bokk na itam li ngay war a waajale koor mooy sa mbokk yooyu nga di leen nemmeku di leen jokku ba bu koor gi ñëwee nga gën leen a mën a bàyyi xel bu baax waaye itam bokk na ca al boodooni lëx wi góor góor lu bay sori lépp loo xam ne lii ay caaxaan la bu dee ay wax la nga fexey loola nga bañ bàyyi ko bu dee ay jëflit yooyu xam ne ay caaxaan la loolu ngay góor góorgóorlu di ko sori di ko bàyyi ndax yonente sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man lam yada xawla zuri wala amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu Seydina xamante dane képp koo xam ne ki yaa ngi woor waaye koor googu maanaam mënoo mënoo caa boole di bañ a wax lu baaxut ak di def lu baaxut maanaam ku mënta bàyyi daal wax lu baaxut ak def lu baaxut ne yàlla soxlawut ngay bàyyi sa lekk googu ak sa naan googu maanaam dafa bëgg a ne ku mel noonu yàlla kooram waaw kon lii daal lenn la ci lu néew ci tënk boo xam ne bii boroom xam-xam yi euh, dénk nañ ñu ko ci euh, nu war ko waajale koor gi ba bu koor gi ñëwee ñu mën cee taxaw taxawaay boo xam ne bii boo ama am solo lay doon lam ca tegaat ci laajam boobu itam muy lu jëm ci wàllu koor mooy loolu ñu tuddee suukaras koor euh, suukaras koor moom na ne amma ma uhditha fi zamanina wa yusammawnahu suukaras koor laysa lahu dalilun min alkitaab wala sunnati lima fihi min itharati alfitan wa geyri zalika min alxuraafaati ne ne loolu muy wax suukaras koor ci defin wi ñu koy defee loolu moom amul ñu benn tegtal boo xam ne bi am nañ ko mën koo jële ci alxuraan wala ñu jële ko ci sunna ndaxte loolu noonu ñu ko tuddee bu fekkan ni ci sharia lañ ko teg muy suukaras koor ñu di ko defe na ko sharia santaane day baax loolu waaye definoo nag moo koy yàq maanaam ay jëf nit ki mën na koo def lool maanaam tudde ko aw tur waaye mu doon tur wu am solo bu baax woo xam ne bii noonu mu ko tudde buñ ko na defaa buñ ko a defee day doon ak jaamu yàlla waaye dinañ ko danañ ko ko tudde ba noppi di ko defee noo xam ne nii maanaam dootul doon ak jaamu yàlla bu boobaa nag ak yàq doon ndax maanaam noonu ñu koy defee moom amul benn tegtal buñ koy tegtaloo ci alxuraan wala sunna ndax bu demee bay bëgg a indi fitna di benn indi ak wujje nga xam ne dañu dem ba ku ko defut maanaam xam am nuñ lay xoole wala ñu di la xas wala nga di ca ruus yooyu bu boobaa doonatul diine doonatu sharia te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noona Euh, euh, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun seydina Muhammad daan noonu na suñu diine jii ku ci boole loo xam ne li bokku ca dañ la koy delloo bàyyi ko yow bu yaa xam looy def ak moom kon yooyu ñuy wax suukaru koor daal ci defin ni ñu koy defee moom doonu loo xam ne lu baax la doonu loo xam ne lii ci charia la bokk suukaru koor moom ku koy joxe danga koy joxe rek te yàlla tax nga def ko sa kemtalaal kattan te bañ ca def bañ caa jublu lenn adduna wala nga di ca yee ay fitna yoo xam ne yi dañ koy def defin woo xam ne wi ñeneen ñi dinañ ko bëgg a def te duñ ko man wala buñ ko defee it ak toppandoo dong lay doon te yàlla taxul ñu def ko jëf yu suuf yooyu moom yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa beneen laaj bi ci topp soxla ndey jóob moo ko fi yónnee soxna ci ñoo ngi koy siyaare di ko dalal mel la ci liggéey bi ñu ngi koy dalal ci liggéey bu baax a baax ko xamal rek daara ji moom daara Sëriñ Tuubaa la liggéey moom Xaadimu Rasuul laaj man alayhi xadaa ramadaanay nii fa xada saaniya xablal dafa am ngànt ci wàllu koor ba yaari weeri koor raw ko ndem ko laaj nag moom am na ca ngantal moom munu koon a woor léegi nag nene eh, bi demee ba ñaari weer yooyu raw ko ci koor mu war koo fay bi koy fay ne ne daa jiital weer wu jëkk bi door fay fay ñaareelu weer bi dañ ko naan faqat nas door a fay weer wu jëkk bi weer wu ñaareel bi moom la fay door a fay weeru jëkk bi faqad nassa ahlul ilmi ala manay taaxiril xadaa ila majii ramadanin uxra dane kon boroom xam mooy daal liñ jëkka tere mooy nit ki wara a fay bori koor yeex koo fay ba geneen koor tàbbiwaat maanaam geneen koor ñëwaat loolu moom dañ koo tere dañ koy bañ waaye nag terew ñu nga yeexe ko ba comme weer wi ñu nekk muy raj muy shaaban di aw baraxlu nga góor góorgóorlu fay sa bari koor yooyee waaye liñ dañ daal mooy nga yeexe ko ba geneen koor dugg ndax na ne ku war a fay koor fayu ko ba geneen koor dugg kon euh, day boole fay loolee ko raw ca koor ga ak ñu teg ko ci ay daan yooyu xam ne saa bu wooree bés bu ne da koy boole joxe aw ñam woo xam ne bii ñoom boroom xam yi ñu ko natt ci sept cent cinquante kilo sept cent cinquante grammes sept cent cinquante grammes ci ceeb wala la ëpp ca foofe nga koy woore la ñuy dundi dal ne boo koy fay kon noonu nga koy fayee danga ko war a fay fayoo ko ba beneen koor jaaraat ci kawam soo koy fay bés bu nekk booy woor da ngay natt sept cent cinquante grammes ci ceeb wala dugub wala fa nga nekk la ñuy dunde la ci ëpp nga jox ko miskin wala nga dajale leen ko kon ne euh, bu ko defee soxna si ne ñaari weer moom la war a fay euh, jëkk a fay yéene weeru ñaareel loolu moom euh, yàqu ci dara jéem fay na moom ñaari weer yi baax na waaye nag jiital googu mu jiital weer wu ñaareel wi maanaam dañoo bëggan maanaam mu jiital weer yi nga xam ne moo jiitu dog cee teg weneen weer yi nga xam ne mooy weeru ñaareel wi yàqu ci dara nag ndax dañ ne euh, koor dafa doon jaamu yàlla goo xam ne gi maanaam day baamu maanaam day ñëw at mu nekk kon dañ ko daal di nattaleeg bu doon ni bëri julli la nga tegale lu mat ñaari julli wala ñetti julli su boobaa dañuy bañ nga safaane ko dañuy bëgg ni mu tegaloo rek nga tegalee ko noonu faye ko na masalan bu doon ni julli tisbaar ak takkusaan ak timis da la raw dañuy bëgg nga tàmbalee ca euh, tisbaar ja fay ko fay timi eh, takku eh, takkusaan doog a fay timis dem nañ benn sax nag doonte safaane nga ko su booba du tere baax na waaye nag sab yool day yokku ndax def nga loo xam ne dañ la ko tere kon daal soxna si ni mu ko feyee dañu koy tere noonu maanaam waaye nag yàqut ne maanaam yàqu ko daal baax na daal waaye nag li ñu gën bëgg daal mooy noonu mu tegaloo rek maanaam mu feye ko noonu waaye nag terewut baax na ndax dañ ne wa sawmu ibadatun متكررة فلم يجز تأخير الأول عن الثاني كالصلوات المفروضة في القضاء li ma doon wax léegi mooy gis nga ne nañ koor jaamu yàlla la ba xam ne day baamu kon mu ne dañuy bañ su fekkee ni da nga war a fay ay koor yoo xam ne bokkuñu maanaam comme ni mu ko defe ni ñaari koor ngay jiital gu mujj ga ci fay doga fay gu jëkk gi waaye nag terewut yàqu ca dara daal ñu daal di koy natt ci comme julli yi julli farata yi su la rawee doon ay limab julli dangay ngay jiitul ga war a jiit rek bam jeex nga daal di faye ko noonu beneen laaj bi ci topp te moo ci des ci laaji tey muy soxna bi Juuf moo ko fi rotal ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom itam moom soxna si ne dafa am ku ko ne boo sangoo farata ba pare danga war a jàng aw saar waaw soxna si dañ ko naan loolu nga xam ne ni nene moom lañ ko wax daal loolu moom laa dala laa la lana ala zalika maanaam ñun daal li njàngun ci fiqh ci téere yi di ko gëstu ci boroom xam-xam yi daal gisaguñ fenn fuñ ne nit ki su sangoo farata ba pare maanaam daa war a jàng aw saar waaw loolu daal moom moom gisaguñ ko xam naa dinañ ci def ab gëstu nag ndax xam-xam moom dafa yaatu su ko defee sangu farata daal lañ ca xamoon mooy may nañu nit ki saabu laab defeek laab lu mel ni jàpp walla mu sangu farata mu def ay ñaan am na ñaan yoo xam ne dafa tënku waaye ñaan moom buñ koy wax lépp loo ñaan ci lu baax rek su boobaa ak lang wa nga koy ñaanee bu boobaa baax na daanaam daal li ma bëgg a wax daal mooy boroom xam-xam yi moom amuñu fenn fu ñu tënkagul wala boo gisaguñ ko ñu tënk ko ne maanaam kiy sangu farata wala su jàppee maanaam na ñaan ñaan gi moom la war a ñaan nga xam ne loolu rek lañ koy fixé déedéet waaye dañ ne rek sopp ñu bëgg nañu ku laab boo xam da ngaa jàpp ba pare wala nga sangu farata ba pare daal nga ñaan ñaan googu nag tënkuñu ko ci ne ñaan gii la war a doon kon bokk na ci ñaan yi nga xam ne yii eh, gis nañ ko ci wàllu woow muy lii may bëgg a wax nii allahumma tahir xalbi wa taqabbal saa yi wajaal maa indaka xayran bi allahumma jaalni min attawaabiina waj'alni minal mutatahhirin ashhadu an laa ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gi ñaan daal gis nañ ne rot na ci téere yi ñu ne ku jàpp ba pare la nga sangu farata ba pare su la neexee mën nga koo ñaan kon li may waxaat rek mooy jéem ñaan lañ la digal ci ginnaaw boo jàppee walla boo sangoo farata ba pare tënkuñu ko ci ne ñaan gi rek la war a doon waaye kon dama lay wax ne la ñaan goo mën a ñaan muy doon lu baax ginnaaw bi nga tuddee ñaari baati seere yi jéem déggoo araab boo nee ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ndax loolu moom ab jullit da ko mën a war a man moom soo waxee ñaari baati seere yi lépp loo ñaan ci lu baax rek boobaa baax na ci sa langu olof woowu nga kon ñoo ngi dellu di ñëpp di tuub di jéggulu di ñaan yàlla doon la ñoo defal tawfiq bi jëy seena muhammad sallallahu alayhi wa sallam ذا